Euh, li nu war a njëkk a bàyyi xel ci li xew mooy dëggalaat waxu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ne wa maa yantiqu anil hawa ndax ba mu waxee ne lislaam ci tumuranke la dooree te ci tumuranke lay dellu bu yu mel nii amutoon mën nañoo jiixi jaax ci waxam jooju bada al islaamu wa sa yaudu gariban fa tuuba lil guraba lislaam na mu doore woon ci tumuranke ci tumuranke lay dellu yamu ca mee dem na ba wax ne jamono dana dikk goo xam ne jullit ñi dañuy bari lool waaye nag seen noon bu néew bi moo leen di dominer bi mu njëkkee tudd dal gi ñu dal ci seen kaw jullit ñi ci mujjug jamono ñu ne ko xanaa boobu moom dafa fekk ñun bariwunu mu ne aha kay na fekk bari ngeen lool waaye nag la dugg ci seen biir dana dugg ci seen biir ci yoon jox ba du ngeen bari solo ba seen noon li ngeen di bari bari moom la muy néew néew mën na dal ci seen kaw loolu ba mu koy wax tey mën nañ ko dëggal beneen bi it waxoon na ne mu jóg jamono xërëj dana bari saxaabatul kiraam ne ko lan mooy xërëj mu ne alqatlul qatl muy ray gu bari gi kon boo jàngatee li xew ci àdduna bi nga xam ne yu ci bari daan cité ba ci réewu arab yi ak la fay xew di wax safara sa fay tàkk loolu yëpp day wane ne ca dëgg-dëgg ñu ngi ci mujjug jamono li xew Palestine nag kon ni ko Palestine comme ni ko xaaj Jibril waxee léegi dañoo judd rek ñun di dégg problème mu Palestine mu nekk problème boo xam ne bu yàgg la waaye li ku nekk ci nun war a yéeg mooy lay xew Palestine bu nu ko ignorer mu xëy xew senegal wax ngeen ko ci biir waxtaan wi ñoo xam ne ñoo moomoon seen dëkk yilifoon ko toog ay étranger ñëw sanc si benn dëkk bu ndaw di yokk di yokk di yokk ba ñëw tey yegg si fii nu yegg si at mu nekk ñu jàpp ne dañuy gën a avancer ba am fit wu toll ni tey di dugg ci biir jàkka dafa fekk ay jullit ñuy julli ñu dal ci seen kaw fii jamono toll ci àdduna beeg li ñuy woote ci wàllu droit de l'homme di ko woote ci wàllu àq ak yelleefu doomu aadama àdduna bi yëpp ne selaw loolu ku mu tiitalul doo nit ku yaakaar ne loolu dal ci seen kaw Sénégal mën na cee mucc kon yëgoo li xew ba tax na jullit bu nekk dafa war a yég ni euh, lii xew fële ca Palestine Palestine da di dëkk boo xam ne ni Màkka mel ak ci jullit ñi la Palestine mel ci biir sunu paspas pas masjidul aqsa wax nga ko léegi sunu borom ci alquraan ci jàkk yi mu tudd la bokk subhaana allazi asra bi abdihi laylan min al masjid al xaraami ila al masjid al aqsa alladi baarakna xawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa samiu al yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi muy ràññaani sunu borom mënoon na ko jaarale fu nekk laataa muy yéeg waaye bi mu déparé màkkatal karam sunu borom nee na ca masjidul haram masjidul aqsa la dem fala alburaax wàccak moom mu yeew fa waruwaayam boobu mu war fa yonent ya daan yeew seen waruwaay mu dugg ca biir jàkka ju tedd jooju fekk fa yonent yi ci kéemtaanu yàlla mu dekkal ambiyaaw yi yonent yàlla Muusa yonent yàlla Isa yonent yàlla Ibrahim ñu liqaamal ko mu jiite leen yéeg jëm asamaan nga xam ne asamaan dañuy wax ne buntu asamaan foofu la nekk ca Jérusalem ndax yeneen yonent bi ba muy yéeg foofu la yéege mais sunu borom xoolal bi mu nettali dana bërëb ba baaraka naa xawlahu la ko wër dañ koo barkeel ba léegi gëstukat yi ñu ngi wéy di gëstu ci baatu baarak naa xawlahu lu tax yàlla ne masjidul aqsa baarak naa xawlahu danu barkeel la ko wër gis nañ ne yenent yu bari foofu lañ leen suul mën nañ cee tudd ko ci mel ne yenent yàlla Muusa ci bërëb bi Israël di defee seen banditismu gi foofu noonu le lañu ko suul ci bërëb yi jar jaraloon Seydina Umar ibnul Xataab mu déplacé wu bàyyee ko Madinatul Munawara dem ba foofu ngir ziyaara ko bërëb boobu ca la bokkoon ñu bari ci Euh, yenent yi jaar fa mu yàgg am histoire di bërëb boo xam ne mosul dëñ ci histoire laataa lislaam di dikk tey bu ñu toogee ba bërëb boobu noonu li nga xam ne jumaa ji yenent bi sallallahu alayhi wa nee na ñetti jumaa yi rek moo war a jaral nit mu jël billet wala waruwaayam dem ngir julli fa di seenu yool bu ëpp buñ koy fay ca jàkka jam bàyyi ca koñam muy masjidul haram masjidul aqsa ak masjidul nabawi ba ca a war yeneen yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne euh, nga julli sama jàkka téeméeri junni lañ lay fay téeméeri junniy julli dañ lay fay jàkk yonent bi a madinatul munawara boo fa jullee mu ne danañ la fay téeméeri junniy julli nga ñëw ci kaaba gi nga julli fa ñu fay la junniy julli waaye nga ñëw ci masjidul aqsa julli fa ñu fay la juróomi téeméeri julli imagineel tey bu ñu seetaanee ba juif di gën a avancé ba jël masjidul saa ñu teg ci loxo nangu ko ci loxo julli ñi te seen liggéey yëpp foofu la jëm liggéey yëpp foofu la jëm tey bu loolu noonu la amee kon xañ nañ ñu benn jàkka ju tedd ju màgg juñ mën a dem julli genn julli tisbaar ñu defal na ko cinq cent tisbaar foofu lañ jëm ak loo ci mënti dégg xeex bi comme ni ko Oustaz Hassan ñoom ñi ci gëstu ci wàllu googu noonu le gën ñu ko maîtriser lu bari wër na ko waaye nag xaqiqatan mooy bërëb ba li mu symboliser gëmuñ ne jullit ñi ñoo ko war a yor mais dañ ko war a yoral ñoom seen bopp ndax bërëb boo xam ne ca jamono yenent yàlla Suleymaan dañuy tudd histoire am yenent yi fa jaar yëpp ñuy tudd histoire bërëb boobu noonu li gëmuñ ne bërëb boobu noonu le war na nekk ci loxo ñi nga xam ne ñooy julliñ ba tax na kon li fay xew wax dëgg fa yàlla lu ñaaw la lu ruslu la di ñaan yàlla ku mel ne Erdogan nga xam ne tey képp ku nekk euh, nit la ñuy def Palestine métti la boo gisee position Erdogan ak luñ ko mënti tuddal nag nga dégg ku ne waaw dafa am lu muy xëccoog na xëccu lu ne baax na waaye daal moom lañ gis mu nekk benn président boo xam ne jullit ñi fuñ leen méttitalee ci àdduna mujjug taxaw la xew ca Chine euh, bañ leen di méttital di rey sunu mbokk jullit ña fa nekk avion la jël sol ko ba mu fees ci ay dund ci mpaj ak i médecin lu ne mu yóbbu leen mu yóbbu mu yóbbu ko fa yamu ca mu déplacé wu dem ne leen bu ngeen amul bàyyi maa ngi nii ànd ak soxnaam mooy seen yaay ànd ak i doomam ne seeni i rek seen i sœur a ngi nii du ngeen leen du ngeen du ngeen am lu ngeen jooy euh, mais xadiya Palestine Birmanie laay wax Birmanie Birmanie bi xadiya Palestine bi imaginel tey ban président ci àdduna moo ñeme taxaw àdduna bépp di ko dégg mu taxé waa euh, Israël ay terroriste ku dul Erdogan ne booy wër terroriste jàppal waa Israël te loolu dafa am solo mat a jàngat tey bu fekkee ñi ngi génnee ay milliards États-Unis Europe partout ñu ne dañuy xeex terroriste lan mooy terroriste Erdogan définition bu gàtt la ci joxe ne àdduna bi kuy wër terroriste demal nga jàpp waa Palestine ndax ku waa Israël kon ku mën a ñëw jël bomb sànni ko ci hôpital hôpital ñoo xam ne ñi ngi faju nga sànni fa bomb ku mën a ñëw jël bomb nga sànni ko ci immeuble comme ni ko euh, cheikh bi waxee léegi si Ahmad Saloum nga xam ne immeuble la boo xam ne nii yow xamoo ña fa nekk dangay ngay sànni bomb immeuble ba daanu mën na am téeméeri nit ña nga fa ñëpp faatu ay xale dangay gis ne ay xale la ñuy ñëw di leen wër ci biir ay tabax yu ñu daaneel mais léegi terroriste ka ñuy tuddee terroriste ci États-Unis kooku lu mu def dafa ñëw dugg ci benn école jël fetal tiire rey fukki nit àdduna bépp di ko saw mais Charlie Hebdo barki dee moo njaay suñu njiitu réew jël avion dem fa je suis Charlie mais ñaata nit lañ fa rey fukki nit ak nangam kepp ñu saaga yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu saaga yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ay boromi pas-pas toog di déglu ñu def acte buy wane ne lii ñu def naqadi nanu waa France ne teg mais ñu dem joxe seen bakkan ray fan ñañ fa raje mais àdduna bépp dajaloo ne dañuy mars ci fukki français ak nangam yu nu rey mais léegi xoolal depuis Palestine ba mu mbir yi xew ba léegi ñaata bakkan ñoo fa rot ba mujj lii tey ñu ngi wax ay centaine ba léegi léegi fi mu toll nii ñu ngi wax ne centaine personnes rey nañ leen dafa dem ba démb maa ngi déglu Al ñu wax dafa dem ba seen hôpital yi dafa fees mënatuñoo mënatuñoo dalal ay malaat wala ay blessé mënatuñ leen a dalal ndax ay junniy junniy nit gaañ nañu leen mais noonu la anajestiwi yi Palestine yi anañu fan la ñu nekk fukki nit fukki français nangam gën a tedd ay junniy junniy bakkanu Palestine ba tey àdduna bi yëpp na tekk ku ci nekk naan ñu ngi woote euh, waxtaan nañu teg armu yi mais bu ñaar di xeex te xeex sax amul benn bandi bu jógee yoon ngànnaayam di dal ci koo xam ne nii amul ngànnaay waa ak ñi ko jàppale nga toog naan waaw nañu toog waxtaan mais balaa ñoo waxtaan jug leen ngeen taxaw tey euh, suñu réew Afrique yi lay cëpp rek ñu ne CPI cour pénal international ñooñu anañu lan la ñuy jëriñ ci àdduna bi mhm. États-Unis boo waxee ñu ne ñooy gendarme du monde anañu lan la ñuy jëriñ dara mais mbir yi li muy wane kon mooy mhm. ndekete dafa am suñu benn mbokk Omar Sarr mhm. maa ngi nuyu Oustaz euh, Saïd Diallo maa ngi koy seet ndeysaan mhm. ndeysaan xam na ko dañu mhm. am daje sa ànd sàmm mhm. jikko yi moo fa wax boo xam ne ba léegi dañ koy nettali mooy li mu jaral addu kalpe bi bu ko jaraloon borom kalpe bi kalpe bi du dem waaye man wax jooju dama ko déggaatee neneen dama ne léegi addu kalpe bi dafa mujj nekk borom kalpe bi maanaam ñun ñu séq kalpe bi léegi ñun ñi seq kalpe bi la am ñuy jël ci kalpe bi ñoo koy addonti ndax tey wax nga ko léegi il faut euh, bu ñuy wax mbiri tamit mm-hmm. dana am ñu ñu joxañ baaraam mm-hmm. tey Erdogan position bi mu am mm-hmm. bu ko Al Saoud amoon bu ko euh, Makka amoon bu ko Arabie Saoudite amoon mais problème bi léegi mu réglé wu jërul sa ngay tudd yeneen réewu golf yeeg nangam ak nangam Arabie Saoudite na taxawoon dóor ci taabal ji ne lii ñuy def Palestine dañoo bëgg mu dakk suba suba danañu waxtaan mbiri dakk waaye tey ñan ñooy Arabie Saoudia mooy ñi nga xam ne nii juif yi ñoo yor seen sécurité boo demee États-Unis di làkk arab wala boo demee Màkka di làkk arab ka fa dem di làkk anglais la ñuy gën a tóojal gën ko respecté ka nga xam ne moom mooy làkk arab loolu mooy réalisé ba nga xam ne moom moo fa nekk léegi bu fekkee ne réew mi nga xam ne tey bu ñu waxee ñu bari xamuñu histoire Palestine ak Israël dañuy xam rek ay jullit yu ñuy bundu xataal mais première question ki xamul histoire li muy posé mooy mais ana Arabie Saoudite lan lay def lan la ñuy xaar fu ñu nekk kañ la ñuy jóg mais ñi xam histoire danañu xam ne du ñu mës a jóg moo tax Sénégal li nga xam ne ñi ngi koy def buñ ci xeeb suñu bopp yeneen réew bu ñu ci xeeb suñu bopp ku toog di xaar Arabie Saoudite ngir mu jóg am benn taxawaay ci mbirum Palestine yaa ngi nax sa bopp ndax bu leeree ne Israël juif yi ñoo leen ngemb ñoo nekk seen ginnaaw ñoom ñuy woote wane ay juif la lañu donte am na juif yoo xam ne nii juif yu baax lañ ci biir juif yi ndax gis nañu États-Unis am na juif yoo xam ne ñu ngi marche wane dra yor drapeau Palestine di métit lii ñuy def ñooñu ay juif lu baax baax lañu mais dafa am bandi ci biir juif yi léegi nag ñeneen ngem bu nekk ci seen ginnaaw dafa am ñoo xam ne ñoo nekk ci ginnaaw naar yooyu noonu li li ñu am ci ay milliards li ñu am ci pétrole euh, aj gi li muy dugal ci milliards umra di ko dugal ci ay milliards jullit ñi moom ko tey loolu noonu bu buñ ko doyloo woon ñoom waxuma sax pétrole ba nu am mais mën nañoo am seen arme boo xam ne nii bu sophistiqué la ba kenn du leen yëpp ci àdduna bi mais jël ay milliards dénk ci banque dénkaane ko ci banque àdduna bi ñoo xam ne du ñuy jullit ay yéefar Londres ak États-Unis partout ñu nax la gëmloo na naa ah, attention ah Iran ngi nii ci sa wet ah, boo sëqatee léegi mu ñëw dal ci sa kaw léegi nag pour nga mucc ci lu mel noonu kaay ñu yore sa sécurité at mu nekk nga jël ay milliards de dollars di ko jox ay noonu l'islam pour ñu yor sa sécurité te boo manqué woon ak sa benn mbokki jullit boo dendal da ngeen mën a liggéey loo xam ne benn noonu l'islam du dal seen kaw ku tudd mooy li ma tudd borom kalpe bi léegi moom mooy addu kalpe bi loolu moo métti ci mbir yi. mooy kaay rey ma rek euh, sëñ Jibril xam naa dama lay libéré ndax euh, Oustaz Sang Diallo lañ war a dalal euh, te moom it waxtu waa ngi dem te war nañoo ñëw tamit ci sàmm jikko yi waaw te sëñ Ahmed dafa war a dem. donc su ma la yeewee damay damay damay damay damay bàyyiwaale si nga xam ne mu soññowaale euh, maa ngi jot message sañ Mor Dàgg si la mi ngi nee na nañ soñu daayira yi ñu soutenir sañ sëñ sëñ Ahmed ci liggéey bu solo boobu euh, ñu déglu sëñ Muntaxa sax wax na ci jàpp naa ne balaa ngay wax sëñ Jibril euh, ci taxawaay bi ñu war a am ci suñu digganteeg Palestine ak war leen a jàppale nag ngir noo bokk ni ko saas imam Mohamed Makhtar Sarr waxee ci jullit yi kon ñu déglu ko ñu déglu discours Cheikh Ahmadou jëm ci lii sëriñ bi digle dellu ci suñu borom waxuma la sax réewi arab yi waaye mën naa cee wax na réew moo xam ne muy Filistin fa nga xam ne fa la masjidul aqsa nekk fa la nga xam ne fa la su su su su su yonent bi foofu la rañaane moom jëm ci boromam foofee ay noona ko wër kapp aw ay ay néew joole dëkku fa noonu yooyu bëgg leen a génne foofu di leen buntu xasaal ci wet bu ne di rey di jàpp loo ko soob mu def ko ndax ëpp gëm leen ëpp la ëpp doole loolu kon lu néew néew doole lii jar na di ko def waxtu wu ne ngir ngir ngir liggéey lislaam la ci suñu kem kàttan ginnaaw moom ku gis loo xam ne gënut boo ko mënee faj da koy faj fa saasa boo ko mënut a faj nga wax la la naqari lépp bu mënut a wax nga am nga am naqaru xol mu wóor xóot ci yow ngir jëf juban ji nga xam ne moom nga yëg moom nga gis kon lii sëriñ bi digle alhamdulilahi rabbil alamin ndokk bi ñu amee kilifa goo xam ne waxtu wu ne mën ñu jéem a delloo ci sëriñ sëriñ bi euh, sëñ sëñ bi discours bu daw yaram la